lan lañ xam ci accident bi. waaw accident bi liñ ci mën a xam rek mooy niñ ko junjee kii di député Moustapha Mamba Guirassy bu Kédougou dafa def euh, accident euh, accident bi nag euh, moom ak chauffeur am ñoo nekk ci oto bi bi ñu yegtee nag ci hôpital régional xamal nañu ne daal ki nga xam ni moom mooy chauffeur bi moom desoon na ci accident bi nga xam ni am na ci Jonkunda Jonkunda nekk benn dëkk boo xam ne digganteem ak Dialokoto toll na ci ay ñetti kilomètres donc ba nga xew diggante dëkk boobu ak Tambacounda war na toll ci juróom-ñaar fukk ak ñetti kilomètres ñi nga xam ne ñoo aju ci woy sapeur pompier bi nga xam ne ñoo nekk soixante et unième compagnie d'incendie et de secours ñoom bi ñu demee ngir wallu ji leen jëli leen ko ba indi ko fii ci hôpital régional bu Tambacounda ñu ngi si jamono ji ci service urgence commandant bu sapeur pompier xam leen ne ni xeetu accident bi dafa nekk benn naaj bo xamni auto bi dafa déraper dal di mbeuk ben auto bo xamni dafa stationné won taxaw nonu lolu nak moy li nga xamni mo indi accident wu Moustapha Mbaba Girassi ba tax fi mu nek ni ñi nga xamni ño faré ci capital oriental Tambacounda ak ñi nga xamni ño nek dal daal ci diwaanu Sédougou fofu nga xamni fala fa la Moustapha fala Guirassy fa la ay mom gëna bëri ñom ñi ngi am ci tefum jaaxle waye dal fi nga xamni mom moy ci hôpital régional bu Tambacounda ñi ngi nëkkatu ci tuuti ngir xam ñi nga xamni ñom ñoy ñooy médecins yi lan la ñuy gën dolli ci walu xibaar ñu jagalal ko xel xam nga lan lañ xam ci bi. accident bi lim ci mën a xam rek mooy ni ko junjee kii di député Moustapha Mbaba Guirassy bu Kédougou dafa def euh, accident euh, accident bi nag euh, moom ak chauffeur am ñoo nekk ci oto bi bi ñu yegtee nag ci hôpital régional xamal nañu ne daal ki nga xam ni moom mooy chauffeur bi moom dafa na ci accident bi nga xam ni am na ci Jonkunda Jonkunda nekk benn dëkk boo xam ni digganteem ak Dialakoto toll na ci ay ñett kilomètres donc ba ngeen koy diggante dëkk boobu ak Tambacounda war na toll ci juróom-ñaar fukk ak ñetti kilomètres ñi nga xam ni ñoo aju ci woy sapeur pompier bi nga xam ne ñoo nekk soixante et unième compagnie d'incendie et de secours ñoom bi ñu demee ngir wallu ji leen jëli leen ko ba indi fii ci hôpital régional bu Tambacounda ñu ngi ci jamono ji ci service urgence commandant bu sapeur pompier xam leen ne ni xeetu accident bi dafa nekk benn passage bo xamni ni bi dafa déraper dal di mbeuk ben auto bo xamni dafa stationné won taxaw nonu lolu nak moy li nga xamni mo indi accident wu Moustapha Mbaba Girassi ba tax fi mu nek ni ñi nga xamni ño faré ci capital oriental Tambacounda ak ñi nga xamni ño nek dal daal ci diwaanu Sédougou fofu nga xamni ne fa la Moustapha Mbaba Guirassy fa la ay mom gëna bëri ñom ñi ngi am ci tefum jaaxle waye dal fi nga xamni mom moy ci hôpital régional bu Tambacounda ñi ngi nëgatu ci tuuti ngir xam ñi nga xamni ñom ñoy ñooy médecins yi lan la ñuy gën dolli ci walu xibaar ñu jagalal ko can't do nothing with it.